mi ngi sant bu baax di am mbégte lool ci ànd ba ngeen ànd ak moom ci liggéey bi Serigne Touba bi mi ngi leen di ñaanal suñu borom kattanal leen te aar leen te sàmm leen te ñu day cee ngërëmal Serigne Touba ndax seen diggante ak moom dafa nekk diggante boo xam ne du tey démb la woon te ba ngeen jugee rek na ngeen ba ngeen jugee rek doxin wam leen xamee woon boobu ba léegi ca loolu la loolu ngeen nekk kon nag mi ngi leen di ñaanal suñu borom kattanal leen te aar leen te sàmm leen te ñu day cee ngërëmal na ñëpp tàll seen loxo te wax amiin te waay bëgg na ko fa si gi ñoom la waaw waaw bisimilah. ndaxa nee na ngeen ko jox di addiyaam jël na ko defal leen leen ko ci liggéey sëñ Tuubaa bi kon na ñëpp tàll seen loxo dox amin te lu waaye bëgg na ko fa si ñaan gi. jërë ngeen jëf bisimilah. nooru daaray nii. li sadinatan bi kullil janna min daaray minan yaatal minna. li sadinatan bi kullil min daaray